taalibe mboolem suñu kilifa yi fi teew ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di jiital ci nuyoo yi ak ziar yëpp Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom dollu ko fa yàggal te may ko ak ba lépp lu mu naal ngir liggéeyal yàlla na ko yeggale ba sumb leneen te ñu ànd ngi koy ñaanal baax a baax suñu kilifa bu baax gi ñu fekk si muy sëñ Abdoulahi buur mi tey Sëriñ Mor Jaara di ñaan suñu borom dollu ko fa yàggal te wéral ko lépp lu mu naar ngir liggéeyal ko waajuram sama borom jàppale ko ba mu liggéey ko ci barkeb Serigne Touba Cheikhul Khadim noo ngi siyaar bu baax Serigne Cheikh Jëmm Fall mi nga xam ne ci ndigalam lañ ñëwee fii tey ànd suñu kilifa yu baax yi di suñu borom yàggal ko fi di sàkku ci ñi fi ñëpp ñu ñaanal Serigne Cheikh Jëmm ba yéeneem ak pas-pasam ci liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall lépp mu yeggale ko di siyaar bu baax Serigne seex Ndiaye Mbeng mi nga xam ne. moo jiite délégation bi di doomi Serigne Modou Moustapha Fall Serigne seex jëm mu yabal ko mu ànd ak ak njabootam tàmbale ko ci sëriñ Falilou Fall moom Serigne Modou Aminta ak Cheikh Moustapha Fall Falilou ak mboolem seeni rakk Serigne Moustapha Cheikh moom Serigne Cheikh Fall Khadigey waaye ziar bu baax euh, Serigne Mbacke Ngunda moom Serigne Ngunda moom Serigne Mbacke Fall nga xam ne moom bis bi euh, euh, ki nga xam ne moom la yàlla dogal muy cër ci biir kër soxna jaar ci biir kër maam Mor Jaara ci kër Cheikh Ibrahima Fall mooy maamam di siyaar bu baax waa délégation délégation bi fi teew muy daayira Jazbul Murid ñu ànd ak njaboot gi teew fi te Serigne lu Fall jiite liggéey boobu ndax moom mooy jëwriñ ni sëtti maam Cheikh Ibrahima Fall yi ànd ak moo du Fall moom sëñ am di Yacine ak mboolem soxna yi bu ñu ci tuddee soxna Ndeye Fall mu sëñ Cheikh Fall Baye Gour yóbbaale na ñëpp ak mboolem taalib yi fi teew yëpp xam naa waxtaan wi eh, ndig Serigne bi dafa joxe ndigal rek ci ki nga xam ne tey moom lañ dara jaale guddi gi muy Cheikh Ibrahima Fall nu am luñ ci leeral ndax diggante maam Mor ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina sëriñ bi dafa wax ne da ngeen a delloosiwaat xar kanamu démb ndax dafa yàgg ci jaxasoo ak sëriñ bi boole leen sëriñ Abo wax na ko léegi ndigal li nga xam ne sëriñ tubaa joxoon na ko ci sëñ Mor Diarra rawatina bi sëriñ Touba nekkee ci tukki bi Cheikh Ibrahima Fall nag. xam naa xaw ma ko sax ba di ko xamle waaye rek damay am lu may leeral tuuti ci moom mooy kan ci lu gën tënku mooy njabi Fall mooy kër baayam waq mooy kër ndeyi baayam njare mooy kër ndeyam damay tënk maam Ahmadou Fall Roqee moo ko meññ maam Ahmadou Fall Roqee maam Roqee njaaye ko jur ak maam Amar Fall ñu dëkk njabi Fall Ahmadou Roqee bi matee sëmp kër daa dem njare jël fa roqee am fa ahmadu roqee maam Amar Fall la jublu wax jël fa roqee am ca ahmadu roqee maam ahmadu roqee mata samp kër dellu njare jël fa maam Seydou njaay taawloo ca Cheikh Ibrahima Fall teg ca Serigne Saliou Fall maam Seydou Ndiaye Serigne Balla Fagué Ndiaye mooy baayam ak maam Soxna Balla Ndiaye bi yàlla dogalee nag mu am ci maam Cheikh Ibrahima Fall teg ci Serigne Saliou Fall seen wayjur teel a génn àddina muy Ahmadou Roqee ñu denc ko ca gentu Kër Saali mooy fa ñax njare Kër Saali asta bi maam bu njaay liggéeyee ba noppi mooy li ñuy wax muuru la ko ay càmmiñam ku ñuy wax Ndiaye Fatma na Seynabou bu njaaykat war nañ ko wut fu mu àggale ab liggéeyam ñu jox ko góor gu ñu wax maam Issa Ali ma Diop ba nga dëkk dëkk bu ñuy wax Belal Diop mu am ca maam Assu Diop mooy caatu maam Seynabou Ndiaye maam sëriñ Daaru Assane Ndiaye lañ ko joxoon mu am ca sëriñ Ousmane Ndiaye sëriñ mot Ndiaye as sëñ Ibra Assou Ndiaye caatloo soxna bu sa Ndiaye soxna bu sa njaay lañ jëloon jox ko sëriñ Balla Coro mu taawloo sëñ Abdou Mbacke Mbar teg sa sëñ Mbaye Mbacke jaaxal 1922 la sëñ Mbaye Mbacke jaaxal ganee jamono ci biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci màkk looy lay ñu ko wax kër Cheikh seen naa fi sax ak njabootam ñu ngi leen di ziar bu baax waaye Cheikh Ibrahima Fall ci tënk rek jaarut ci ndaw daa màggale sëñ Touba de Cheikh Ibra jaarut ci ndaw ndax bi yàlla dogalee mu jàng mu war a jàng ndax ndeyam maam maam maam bu Njaay daana aw sëriñ ba sëriñ Balla ci daara ji kër ndeyam ak kër baayam yëpp daara la maam Seyni bu Njaay daana aw sëriñ Balla Faagee Njaay ci daara ji maam Cheikh Ibra Fall ndeyam daana jàngale ci njarewaat moo tax jaarut ci ndaw daa màggale sëñ Tuubaa waaye bi digg ba jotee nag ci tënk rek mu jóg ngir wëri sëñ bi sëñ bi wax na ko léegi jaay na jaar na Taïba Dakar Cheikh Ibra jaar na Sine lay kan ke sëñ Modou Maram Cheikh Ibra jaar na Badar Gueye waajoon na sax ngir dem gànnaar ndax waxoon na sëñ Modou Maram ne ko ki may seet bu fekkee ne gisuma ko ci ñuul ñi te ngaa bàyyi ma seet ko ci ñi weex ñi ba xam ndax xamul fu muy wëri ko tedd ki sëñ Touba Cheikh Ibrahima te tegtal nañ ko ko mu fekk ko Mbàkke Kajoor muy ñaar fukki fan ci weeru ko waaye Cheikh Ibra nag ñëw na fa li jiitu ñaar fukki fan waaye ba mu matee ñaar fukk la ko jox boppam moo tax sëñ Moussa Ka nañu ma wax la bis ba ngir mu wóor ñaar fukki fan la ci weeru koor bisib dibéer la mbir ma wóor sëriñ bi yaare yi bexe ba loola xewee nag maam Cheikh Ibrahima Fall daal di nag ànd nag ñam fa fekk ñëpp ngir rek daal nag soobu yoonu liggéey wax nañ ko léegi muy xitma nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall ci la li mu am lépp ci la ko am muy liggéey ndax mos naa wax sama maam baaba maam Cheikh Ndaw ne ko liggéey gën jàng joxe gën julli maandoo gën koor njaarim la ko waxee te leen lu ci nekk tey suñ ko tegoon ci taabal bi di ko waxtaanee dinañ xam ne Cheikh Ibra moo xam li xew waaye nag li ko yàlla boole bi yàlla dogalee nag mu jóge fi ci dëkk boobu ba sañc hmm, ok ok bi yàlla dogalee mu sañc nag fi nga xamante ne bii mooy ndar ndax ku ne xam na ne Cheikh Ibra Fall jiitu na Sëñ Tubaa ndar lu yàgg waaw sëriñ door ko faa fekk Baye Abdou Niang moo ma wax na ma man na lu ma fi nettali ci Cheikh Ibra Fall ku Cheikh Ibra Fall moo moom ko wax mbaa ko Cheikh Ibra yar bàyyam sama digganteeg Cheikh Ibra kay du sori dama naan la diw nee na ma Cheikh Ibra nee na ko wala diw nee na ma bàyyam nee na Cheikh Ibra Fall nee na ko Baye Abdou Niang moo ma wax ci làmmiñam na ma maam Cheikh Cheikh bi ko sëñ Touba wàcc fii ci Daaru Salaam fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm da ko booleeg maam Cheikh Anta na ko dénkal ma ko askamara maam Cheikh maam moom bi mu ñëwee sindoo di la fekk maam As Camara mu dëkk ak moom am fa ab diir maam As na ko gëndal ndar yu seq dex gi Cheikh Rafal dem gëndar loolu moo sabab kër googu ci école Cheikhou ture ca côté armée li Thiam muy Caaka Ndiaye kër googu fa Serigne Fallou Fall ab taawam gënee jamono fa la Serigne Ablaye Fall Ndar gënee jamono ndax seen ndey mi ngi dëkk ci wet gi Fat Fall waat di yërim bañ a wàdd ko jur ak Assou Ndiaye Ndiare ci gëndar bi loolu amee nag Cheikh Ibra daal di dugg côté Gandiol sëñ Mbayloo di 1892 la ko jox boppam sëñ mu Guèye Ñaay ak sëñ Mun Njaay Ñaay ñooñ ñëpp jébbalu ci moom ci ñaay googu ca Gànjool Cheikh Ba Fall ànd ak ñoom di liggéeyal sëriñ bi boobu am na ay tool ci Tasineer sama maam Baye Cheikh Ndaw mi jur sama baay foofee la gën a jamono ci Tasineer ak Cheikh Diop taw Cheikh Atoumane Diop ñooy premier turandoo maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf loolu nag bi mu xewee la maam Cheikh nag bàyyi ko foofu di nag sanc ba ñëw ndànd bi mu ñëwee ndànd nag ci fekk am na ndigal ci ku tedd ki gannaaw bi mu amee soxna Astou Sylla ak jur Seex Moussa Fall am na ndigal ci ku tedd ki ngir dem mbànd jëli fa ku ñuy wax soxna Xari Jóob maam mu jaañ Jóob ko ko jox loolu ma loolu sëñ Cerno Mbàkke gelongal moom a ko wax ba mu ko jëlee mu am ca sëriñ Basiru Fall lu doy waar nag laa leen di wax moom ak turandoom sëriñ Basiru Mbàkke te moom lañ ko tuddee ndax Seex Ibra Fall bi sëñ Tuubaa di battale soxna Fatou Mbatou Mamoun naan bu amee gan dañ ko tudde Basiru ba ko Cheikh Rafal déggee la dem mu fekk soxna Awa Jaxate jóg am gan mun a Basiroo ko ñu ne ko ko tudde mun a sëñ Tuubaa laa dégg mun a Basiru dina ñëw jamono mu tudde ko doom Basiru Awa Jaxate moo mag Sëriñ Basiru Mbàkke loolu pas-pas la léegi nag sama borom dogal moom la ca am Cheikh Basirou Awa Jaxate moo toppoon ci Serigne Modou Moustapha Fall sëñ Mortala toppoon ci moom sëñ Taale Yaasin la fi bàyyi woon bi loola amee nag ci la amaat ndigal ci ku tedd ki delluwaat mbànd jël fa ku ñu wax waaw baax na maa ngi ñëw léegi ci biti maa ngi lay fekk ci biti léegi waaw euh, sans dogal Cheikh Ibra delluwaat foofa jëlaat fa ku ñuy wax soxna Faat Jóob Sayer dooy maam Sayer Jóob la am ca ku ñuy wax Sëriñ Mortala Fall teg ca Serigne Aliou Fall Mboor teg ca Soxna Aminta Fall ak Serigne Omar Fall ak sëriñ Bara Fall yàlla dogal mu amaat ndigal ci ko tedd ki delluwaat mbànd ñu ne ko Assane da bàyyi na fi ñaari doomu jigéen Cheikh Ibra wax ne sama sang maa ma jox ndigal ma am fi soxna ñu jox ko ku ñuy wax soxna Xari Diop maam Cheikh Ibrahima Fall dëkkoo ko taawloo ca Serigne Mbacke Fall 1904 la gane jamono ca ndànd Cheikh Ibra yónni sëñ Mame Mbaye gànnaar. sëñ Touba ne ko na ko tudde Maam Mor mooy Mbàkke Xari Jóob waaw sëñ Mbàkke Ngunde mee toog sëñ Mbàkke Xari Jóob moo jur baayam mu ne ko na nga ko tudde Maam Mor at moomee sëñ Maam Mor xam sa dina waxoon naa la ko lu gane jamono ci kër Cheikh Ibra sëñ Mor Jaara la tudd waaw Cheikh moom bu ñu ko joxee ndigal day sar <laughs> waaw ndax ci at moomee la sëriñ Mame am tu tànk yónnee fi Cheikh Ibra Fall ndigal mu ne ko ndigal li fi mujj mooy sëñ Mor Diarra muy sëriñ Mor Lo waa Thiès xam nañ li may wax doomi sëñ Mame Mbaye Lo la at moome ci la sëriñ Mor Lo gane jamono ak sëriñ Mbacke Fall Xëri Diop ñi déppaloon Mame Mor li war a turu Mbacke Fall bi nag wax nañ ne dafa am lu ko mas a dal ci tànk ñu di ko faj mu të wér sëñ Mor bindal ko téere boo xam ne bi ko Cheikh Ibra Fall gisee moom mi xam li xew daf ko ne téere bii daw ahlu Mbàkke képp ko war a am ana ku la jox téere bi mu ne ko sama turandoo ma ko takkal maam Cheikh nag ko kon ku yabu di la wooyee na ku ma nettali ci njaboot gi nee na sëñ Abdou Xafoor a ko wax sëñ Bas mii di xalifa tey nee na sëñ Fallou ko ko léegi nag kon loolu day wane ne kóllëre Maam moor Jaara wala boog damay wax ne sax du ma ne dama ne du ma ne kóllëre dama ne diggante jaamakub sang la Cheikh dafa waxoon ne càng gi ak njaam gee fi ne jël leen càng gi jox waa kër sëñ Bàmba te téye njaam gi ñun ay jaam képp lañ mën a doon ci yéen duñ doon leneen ba dinay tukki Cheikh Ibra Fall nee na mbàkke mbàkke bay bootu wutaloo ma ko sëñ Tuubaa moo tax xam naa ne waxtu wi guddi na waaye suñu kilifa yi fi teew noo ngi santaat noo ngi santaat ndax moo tax noo ngi santaat yàlla bu baax ndax euh, lii ngeen def dana dana danañu dimbali ci lu bëree bëree bëree bëri dana taxit ñi xamut woon xam dana taxit ñi nga xam ne ni ko sëñ Abo waxee léegi dañuy nettali yu bëri te duñ ko teg fenn ndax ku ne xam na ne tey diggante bii may waxtaanee tuuma yàgg na leen a topp waaye xamuñu li xew yoon wi dañ koy gëstu waaye di yor sam xel moom mu rafet rek wala moo jàpp ne rafet na di xalaat di dem loolu moom waaw <laughs> kon loolu moo tax ñu xam ne diggante bi day diggante boo xam ne ca démb nii lañ ko doon doxe ba yegg si ci tey ay leer ne ci biir kër Cheikh Ibra Fall ñu dippaleen sëñ Mor jaara ba pare ñu di ko dox maa ngi fàttaliku sëñ Xaadim Xafoor yàlla yàlla yokk ay leeram am na bis bu mu doon def ndar sëñ Mbacke Fall la ko tuddee keroog sëñ Fallu maam say mu sëñ Mbacke Fall maa ngi moom a ànd sëñ Bas yabal ma daf ko ne yow de xam naa ne dañ mag dalaa mag dalaa déy ndax sëñ Mbacke Fall ba mu demee yàgg na loolu ki la jox xel mii mag la te ba tey jii délégation sëñ Bas day ñëw ci bis bi kon loolu dafa yàgg Cheikh Ibra nag noonu de sant nañ leen bu baax ndax lëg moom boo ko sànnee ci lay defar nga affaire am te ku amul lu dul lenn denc ko ci bërëb Cheikh Ibra Fall neen boo fa déggee yuuxu kenn warul fa jiitu looloo nu fi bàyyi ba waxtu wi suñ kilifa yi de miinooñu ci ñoom toog ba waxtu wi miinuñu ko ci ñoom waaye comme Cheikh Ibra Fall daa waxoon na wax leen ak man doom may suuf njaarim la ko waxee kama ko nettali nee na ma kenn nettaliwu ma Cheikh Ibra Fall la wax fii ci njaareem ne sëñ Bamba asamaan la xool rek ngeen ci wax leen ak man doom bëri na koy seen mu naan sëñ Touba xamu ndax koo xam ne boo tuddee ci kan mu sëñ Abdou Lahad mu soppi nga tudd ci kanamu sëñ Saliou ay rongañam génn nga tudd ko ci kanamu sëñ Fallu mun a borom barak bi rek kooku koy konnam kon defe ne xam nga ko xamoo li ngay wax Cheikh Ibra Fall ne sëñ Bamba asamaan la doom xool képp ngeen ci wax leen ak man maay suuf daan na lu waay buub nag xëpp sama kaw Cheikh Ibrahima wax de lu waay gas ba mu xóot def sama biir waaye Cheikh Rafal ne lu yàgg ci man ma def ko muy suuf te suuf kat doom kenn mënu ko sopp muy leneen wax leen ak man doom daan na waaw ma laaj leen baykat suy ñaan ku muy ñaan ñu ne ko xanaa yàlla Cheikh Rafal na baykat suy ñaan ku muy dëkki loxoom ñu ne ko asamaan mën a doom boobu ana yaakaaram mag ñi ne ko mi mu def ci suuf Cheikh Rafal ne lu tax baykat jël yaakaar yaakaaram def si suuf ba pare dëkki loxom asamaan daan waaye yàlla ko ëpp fulla ndax bu ko yàllay jox ndox moom baykat daf koy tooyal waaye suuf la ko yónnee Cheikh Ibra Fall ne su ko defee suuf ëmm ndox mi génn ko njëriñ naa wax leen ak man doom waaye Cheikh Ibra nag toog na ba mu yàgg jéggi mun naa doom sangal si larax na ñu ne nga ne mun a sangal si larax na de ñu ne tekk mun a ndomb yu xuur na Cheikh Ibra naa ña doon liggéeyal yàlla doom jeex nanu xale yeeg jigéen ña fi des képp di xëccoo alal ji daan na suñ demee ba ca kanam lu si yoonu sëñ Bamba yi lu ne waaye su boobaa doom lu ngeen gis te bokku ci na ngeen xam ne mbat ma rek la ñu ne ko Fall luy mbat ma Cheikh Ibra Fall la doomi soxna ju jàngul tër bi yow bàyyam faatu mbooloo ma topp ko di xam fi mu jëm day xam ku jëmale daan na waaye su boobaa yéen ñi ma yaakaar di sax ci ndigal tey bàyyi tere tey jàng xasaay te toog ci seeni kër te fa doomi sëñ Bamba aw ngeen ndax doom lu mu gàtt xam-xam xam lu yor wi kat doom jub na kocc yaa ne ngay yëgg na rek Cheikh Ibra ne ku soobu doom yaa duxul kuré waaw ah, Cheikh Ibrahima da ne ku sóobu te yëggoo yaa doxul kuréel yaa jàdd teg nañu ci aw yoon wu leer woo xam ne bu ñu ca jaaree dañuy mën a jariñu ndax maam seex ma fàtt leen tuuti ne musta dañ ci liggéeyal sëñ Bamb sëñ Moussa Sylla Cheikh Rafal am na 75 ans di ñaqal sëñ Bamb xamala la fa kañ la vingt 1929 bañ tàmbalee raay ba jëm jóge njaarim jëm Touba 30 fin 30 la àgg fekk na fi sama am donte ne fekk wut àggale ba waaye fekk na tàmbali ba ndax bi ñuy gas bay tollu dala Cheikh Rafal ñëw na ci jotaay maa ngi ko dégg ci lamañu góor gu ñuy wax Ibra Fall Maajoor mu ne wax si wagen bu verte la yor sëñ Modou Fall Mbenda ko doon dawal keroog mu ngi ànd ak ku ñu wax Yuusu sëñ Modlo sëñ Njaay Roqee sëñ Yaaram Mbay Bay Seex Tal Galo lay Xaar Jóob bi maam Seex ñëwee ba leen di jub si la sëñ Moussa Ndiaye ne teg leen liggéeyukaay te yéegu suuf ndax kilifaa ngi ñëw ñépp teg liggéeyukaay sama maam Seex ngi may lus bu ñuul kala sàmba sànga yu gudd yi la laxasoo ba mbicc may wàcc ci suuf ñëwee bi mu ba jub daf ne xéexée waaw <laughs> ah, eh? ah. ah. waaw baax na waaw baax na kay baax na de jërëjëf jërëjëf yow xanaa lii <laughs> waaw léegi nag fii damay wàcc samay kàddu rek damay wàcc sax dama dama dama sëñ Moustapha Sylla damaa jubloo leeral ne yoon wi amul wàcc ndax Cheikh Ibra Fall nee na wàcc biir bàmmeel lañ ca xamoon maam Cheikh am na 75 ans ma ne di ñaqal sëñ Bamba juróom-ñaar fukki ak juróom keroog bi muy ñëw wax si wagen la war sëñ Modou Fall benn daa ko doon dawal góor gi moo ñu wax ci làmmiñam ne bi mu ñu dàndee kenn ci mag ñi moo ne teg leen kaay Cheikh Ibra Fall lay ñëw ñëpp teg liggéeyukaay yegg suuf mu ne bu kenn jox loxo nañ ko xool rek xool rek doy na bu kenn buuxante ñu di ko xool maam seex wàcc ne hee doom seen liggéey bi mbaa fooyewu leen ko ñu ne ko ah déedéet Fall mu naa ah, doom mbaa fooyewu leen seen liggéey bi ñu ne ko ah mu ne seen pënd baa ngi may seen aras wallaay seen pënd baa ngi may seen aras ku ne war naa def ni yéen doom ku ko mënta def ngeen ko niin ngeen koy defee na gas am leeñ pëndam jug jaxasoog seen pënd bi doom fa ngi fanaan sori na de daa pënd bu demee day yëgle ko fa def Cheikh Rafal ne yëgal ay waajuram lépp ci mucc lay tàbbi doom daana cay borom yoon wi bàyyi Cheikh Tall Galaw nga taxaw maam Cheikh na àll leen ma liggéeykaay ma def ni yéen ku ñuy wax Jibril Guèye ko sànni peel seerafal tibb juróom-ñaari peel suul na gaa yi gis ngeen ma ñu ne ko waaw mun a ma nit doom gis naa leen daana waaw fu Tuubaa féete ñu dem ñu dem ba koy joxañ mu naa ah, bàyyi leen ko xam naa ko doom daana maa ngi bëgg a mat góor maa ngi bëgg a mat góor bisub talaata la talaata ja ba talaata ja delsee guddi altine ga di ñetti fan itam xarit di la 3 juin 1930 ci la saamam Cheikh ñibbi àjjana altine ci guddi ba setti talaata ci la saamam Cheikh bàyyi koo fii kon loolu mooy li nga xamante ne bii moom la maam Cheikh def te loolu nee naa talaata ja ba mu ñëwee avant muy dellu si ci altine ja ci la Cheikh Rafal wàcc liggéey kon maa ngi bëgg a mat góor ge ma waxoon maa ngi bëgg a góor de kon ndekete loolee doon signalé loolu ma nga xewe woon eh, dalangaabu koroog góor gi nee na ma bañ noppee dafa daal di dugg ca oto ba mbooloo ma topp ja ñu jëm daal di guy ngeen googee daal di jooju la maam Cheikh Ibrahima Fall mujj la rek nee na ma koroog sax bañ ñun bañ yëgee li xew ñëw nañ Touba waaye comme dañoo dox fekk na la cay farata lépp ñu def ko ñu wàññi ko ñëw njaarim muy la 3 juin 1930 di ñetti fan itam xarit ba sëddi ñeenti fan day fa fa làqu ci ñetti fan ñu koy denc ko ci ñeenti fan ya fii ci Touba bokkoon na ci la mu waxoon ne bu ma fi jógee sama xëru na gën a xóot boobu sëñ Bamba na gën a xóot boobu la ko battale loolu gis naa ko sëñ ki ñu ko nettali mooy sëñ Modou Ablaye Fall Ndar moo ñu ko wax nee na sëñ Modou Mbend daa ko wax kon yooyu yëpp day wane ne rek maam Cheikh Ibrahima Fall naka jekk moom lëggal sëñ Touba ci la doon teg tànkam gudde ak ba ci suba ngoon am na it loo xam ne góor gi Ibrahima Mbodj mas nañu ko nettali maa ngi waxtaan yi mu ne gouverneur Wiltor daa woote woon ca Ndar Cheikh Moussa Mbacke wolu sëñ Mourou Moussa Fall ñu ànd sëñ sëñ Bachir wax jërëjëf Mbacke sëñ Bass waaw nee na bàyyam ab taawam Cheikh Ibra la ko tudde woon sëñ Mbacke Fall jëma waaw léegi nag gouverneur Wiltor daa woote ca Ndar Cheikh Moussa ànd ak sëñ Mourou Moussa Mbacke wala sëñ Mourou Moussa Fall bi ñu egsee Baye Ibrahima Mbodj nee na ca délégation ba la ànd mais bi ñu egsee gouverneur joxe loxo ku mu jox loxo jabaram jox la loxo nga jël te mbooloo ma fa taxawoon ku mu jox loxo rek jabaram jox la loxo comme ni président di nuyoo rek nee na bi mu egsee ci sëñ Mourou Moustapha Mbacke sëñ Mourou Moustapha Fall nee na liy mbiram mooy xam na ne gouverneur bu joxee loxo Cheikh Moussa Mbacke bu roccee loxoom ndaw si dana tàllal loxoom te Cheikh Mourou Moussa Mbacke di ko nuyu waaw waaye nag am ñagam la nee na mu ñëw dend ci wetam bi gouverneur ne jëy loxoom seex Cheikh Moussa Mbacke nuyu ko ba rocc loxoom ndaw si ne jëy loxoom Cheikh Moussa Mbacke sëñ Mourou Moussa Fall nuyu ndaw si ne ko kuy du nuyu jigéen waaye nag Cheikh Ibra Fall leen waxoon na leen mu Moussa mu ne ko Fall mu ne ko fu ngeen daje njabootu sëñ Bamba du war a taq ci ñoom da leen taq yéen ngeen yóbbu tuuma ñoom ñu set ba tey ci yoon wi ci loolu lay dox xam ngeen ne fu ngeen daje njabootu Cheikh Ibra Fall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 koroog réunion yi ñu mujj a def seex Moussa Fall Cheikh Mour Moussa Mbacke toog na Cheikh Ibra Fall toog Cheikh toog waaye li gën a yéeme mooy xoolal bi tubaab yi santaase sëñ Mour Moussa Mbacke ci raay bi gis nga Cheikh Ibra Fall fi mu toog Cheikh Moussa Fall dana bërëj jug wër baayam bi mu wëree baayam ba jàkkaaroog seex Moussa Mbacke daf ko ne loolu tubaab yi wax nangul luñ la wax nangul man Moussa Fall li ko dara njëriñ ba Touba foo ma tërëfa yi danaa fa tëral ak weñ Cheikh Ibra Fall fudd <laughs> Moussa engagement loolu te loolu la ko doxalee de ndax raay ba junni nit ak juróomi téeméer ya ko doon gas Cheikh ba Fall la joxe juróom-ñaar téeméer ya moo la ko joxe te magasin ba mu joxe ci ndula fa lañ doon denc dund bi ba ñuy egsi ndula Cheikh Moussa Mbacke ñëw na ànd ak sëñ Masorang ak Mbaaxaan ba ñuy egsi dala Cheikh ñëw na am ak Abdoulaye Xaar Diop te ñooñu Cheikh Ibra Fall leen dimbali yat wam dóor ca xolub jóoru jorndee la door ko ci xolub njoxomboore màngara dóor ko ci xolub dembawaar sàll ko ci xolub si ga ca njukki mu jox ko soxna Fall Mbaar Cheikh Ibra Fall dëkkoo ko am ca soxna Astu Fall Mbaar jël ko jox ko sëñ Touba addiye sëñ Touba jox ko sëriñ Basiru Mbàkke moom sëñ Cheikh Astu Fall ko jox xolu ki nu ko waxee saa si mbóoj geddale ko jur ca Chine te geddal daa a falu bàyyi fa nguur ga ñëw jox boppam sëñ bi bi mu ñëwee ñu topp si ko pelante ko aaroon na ko mën doo fañ mu may dégg moo ma ko nettali nee ma keroog bi ñu ko pelantee daf na man falu buur liggéeyal sëñ Tuubaa ma ko gënal sëñ Tuubaa boole ko soxna Fat Jaxate saa si ne ci wanagu soxna Fatou Jaxate ab diir lañ ca teg yéena di jiital donga yi am ngeen ndam tey ak ëllëg seenu sëriñ day moo fi gën gannaaw mi yéena fi gën moo gën sëriñ sa yéena gën seeni kam dag leena dëkk yii sax fàggu mayu ko yite ju rëy mayewu ko pexe bu rëy mayewu ko mbay bu nawet bu jag bu yàlla jox si sang yi sang ba gën si sang yi def na nga gën si donge yi nga xam ne baa xamakat yéen a gënu sëriñ bu ne sëriñ bu ne xam ne ne yéen a gënu nitam asaka daal kii saara la doon nga daal jox ak sëriñ te di ko wax sëriñ bi maa tamara yëpp. jërëjëf eh, sant nañ bu baax a baax nag te sant sët yi. ndax fii ci Mbàkke wax nañ ko léegi njabootu Cheikh Rofane dëkk nañ fi loola carrière 1926 la lañ leen joxoon suuf si ngir ñu doon man di jóge fii di dem carrière ndax booba njaareem lañ amoon ay kër ak xuuru Mbàkke te daana sori njabootu sëñ Mor Diarra jël suuf si jox ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Mor Moussa ñu fiy jóge di dem carrière loolu lépp ab liggéey la fii ci mairie Mbàkke bii kër Cheikh Ibra Fall la woon teen bii ci biir moo ko gasaloon boppam ndax Cheikh Ibra dëkk yi am suuf dëkk yi am tefes sax mbaa gaar yépp dafa daan jënd kër la mu fa daan jublu mooy waajal sëriñ bi pour fu wàcc lu mu gudd gudd tumburanke fu nekk loolu moo war a kër ga ca Ngumba loolu moo a kër ga ca Thiès ak Kébémer loolu moo waral fee ci Lambinaas itam muy Ndakaaru plus de 4 kilomètres la woon aroona ko Ndofène ak Papa Diop ñoo ma nettali woon loolu dina ko tàmbale hôpital principal jàpp avenue Rome yooyu tool ak daara lañ fa jublu woon mooy te sax firnde li mooy sëñ bi wàcce na koroog ba mu wàccee 1911 novembre 1902 loolu lépp la ko sababoon mooy tey dalal fa sëriñ bi kon Cheikh Ibra bëgg-bëggu sëriñ bi rek ndigal li nga xam ne sëñ Tuubaa joxoon nag ko itam ci géej gi mooy lam daan indi ci àddiya mu di ko indil sëñ moor Diarra loolu itam nettali nañ ko fi léegi du jaar jaaraat kon daal nañ xam ne ndigal li mu amoon ci sëñ Tuubaa Cheikh Ibra ngir lëggeel ko sëñ Mor Diarra loolu yàlla boole woon na leen ko ñu rafetal ko ba yàlla dogal tey jii ñu fekk Serigne Touba Cheikhul Khadim njaboot gi itam mboolem ñi fi mas a toog ak moo Mor Diarra loolu lañ doon dox diggante ak njabootu maam Cheikh mu rafet ba fii ñu toll tey jii njabootu Serigne Modou Aminta Fall gii toog tàmbalee ci Serigne seex Ndiaye Mbeng mi jiite délégation bi bàyyi ko ci Serigne Cheikh Jëmm ak Serigne Fallou Fall mii ak njaboot gi yépp Cheikh Moussa tey kóllëre yi nga xam ni dox nañ ko am nañ ko ci diggante paaleen ak Mbàkke xewar loo xam ne yàgg nañ di ko dox ci loo xam ne xew na muy xew jàmm muy lu mën a doon loolu tey sët yi dañoo delloosiwaat liggéey boobu ñu ngi ñaan yàlla nag suñu borom sàmm loolu mu yàgg te lépp loo xamante ni bii ngërëm la ñu sama borom defal ñu ko ci te xam ne daal tey sëñ bi bëgg na am na métti bu baax a baax kontaan na it xelam dal na bu baax ndax lii dana rafet dana dana tax ñun ñëpp bu ñu ci jógee mën a gëstu jiwaat mën a yaatalaat liggéey bi te xam ne liggéey bi la Cheikh Ibra Fall waxoon rek moom dafa am ay jamono dafa am ku ñëw ne ko Fall sant nañ la bu baax ndax waa Kajoor a ngi ñëw waa Bawol a waa Sine ñëw yow mi nga xam ne ba mu méttee yaa wane woon naka la Cheikh Ibra daf naa man ni ngeen da xam ne yoon waa ngi yokk ni ma koy xamee bokkul xam ngeen ne tubaab di wax remise ñu ne ko ah dañ ko def ci njaay de mu ne ci laay xam ne yoon waa ngi yokk daan na ku jéblu daañ ma fekk fi ne na ma diw doomu diw diw jéblu na ci yoonu murit nanga lu jëfal sëriñam nangam nga ci am waaw ndax Cheikh Ibra Fall nee na yoon wi su doon ngoro la bu tasee mën nañu delloo alal ji Cheikh Ibra ko wax ci njaareem can nga mën lañ koy delloo nee na maa njëkk a bàyyi sama ndey bàyyi sama bàyyi bàyyi yàlla ma sàkk jàpp sëñ Bamba waaye loolu sëñ Bamba gor la dafa maa yeewi mar la ma yàlla ba lu ma neex neexati neex yàlla sëñ Tuubaa Ibra Fall daa bàyyi ay bokkam bàyyi boppam bàyyi na sax boromam ngir man waaye defaral naa ko boppam maral naa ko boromam boole naa ko koy bokkam ku toog ci kanamu sëriñ bi tudd Cheikh Ibra boo masaana ñëw fekk sëñ bi sax mu toog ngay wax dara ci Cheikh Ibra Fall ndax man nga ndox mun a nga ne ko dee mun a la dëppal bala ngàllam dëppal bala ngàllam wax na ko wax na ko nit ba tey dëppal bala ngàllam waaw te ma sëñ Thierno Diaw moo ma wax na ma sëñ Mat Diaw baxa baayam na naa sëñ Touba ñaari Baye Fall ne dox romb leen sëñ Touba nag gees loo dégg ñu di wax ci waa Kibra Fall yi mu ne ko dégguma kenn di leen wax dara sëñ bi ndax am moos ku leen di ngeen ëllëg yaa du matum sa wara Mhm. te man sàkk fi Ibrahima Fall ah akay Fall yaram jërëjëf santaat nañ bu baax noo ñaan yàlla ngeen yàgg fi loolu te sant bu baax suñu xol seet na ci yéen bu baax neen sa borom taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu kilifa yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàgg ak wér noonu lañ koy ñaanalee tamit sëriñ Abdullahi Mbàkke mi nga xam ne moo fi tooge jataayu sëriñu Moor Jaara suñu borom bàyyi ko fi suñu kanam mu yàgg fi lool te wér noonu lañ koy ñaanale tamit jëwriñu murit bu mag ba Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina sëriñ Cheikh Jëmmu Fall ak mbooleem njabootuk sëriñ Touba gi ak Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi jéggulu ci kàddu yi bu baax a baax a baax ndax yëkkati gii nu ko yëkkati xañ na ku dégg sunu kàddu rek da nga xam ne wax ji des na bu baax a baax waaye nag kàddu ndigal la yoo xam ne dafa bàyyikoo ci sunu kilifa yii te sëriñ bi waxoon ñun ci ay téeréem nañu laa tafxaloo say an bi xayri isni fal isnu sartun fi xabooli saxni bu leen def dara te amu leen ci ndigal loolu moo waral ñu yëkkati suñuy kàddu ci barab bii di jiital ci nuyoo bi tamit suñu kilifa gi nga xam ne muy sëriñ seex njaaye mbeng mu seex Mouhamadou Moustapha mu jiite délégation bi nga xam ne moom la sëriñ seex jëm yabal ñu ànd ak sunu kilifa yu baax yi nga xam ne mooy seex Mouhamadou faadal Cheikh Mouhamadul mustafa ak sëñ Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gépp kenn desut ba ci daaru xafoor Sërif Assane ma nga xam ne moo teewee jataayu Serigne Saliou Fall yabal na fi sëñ ak sëñ Daouda ak mbokki taalibe yi day war day day day firndeel ne bis bi nga xam ne jël nañ ko dara jaale ko maam Ibrahima Fall mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp bunt kër bu ne am na ñu fa bàyyi ko ñëw teew. ngir mu war koo sàmm nag ñun ñi nga xam ne ñooy ay taalibe nekk ci biir dëkk bi di xam liy xew di dugg ak a génn xam ñi nga xam ne sëriñ bi neexu leen xam ñi nga xam ne doxinu sëriñ bi neexu leen ñun ñooñu ñoo war a taxaw temm ngir li nga xam ne moom la sëriñ bëgg ngir loolu am sëriñ bi li mu wax lu ko ñor la kon xam naa euh, ñi ngi sant yàlla bu baax di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi waaye liñ bëggoon a wax lépp xañ na Euh, xataay waxtu wi dana tax duñ ko mën a wax waaye sëriñ bi daal mi ngi sant mi ngi gërëm mi ngi ñaanal mboolem ñi nga xam ne sëti sëñ Moor Jaara la su ma ko waxee nag njabootu sëriñ Tuubaa gi ak mboolem jullit yëpp dañ ciy dugg yàlla defal leen jàmm te bis bii tamit ñu yàgg koo teewe te ñu ngi leen wax tamit donte tuddewuñ ko ko sax at yu mën a doon waaye heure bu tee rek yëg gii ñu ko yëg tamit nañ ko ko yëg bu soobee yàlla nuñ ci war a taxawee rek danañ ko ci taxawee incha